auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim sallallahu wasallama ala alhaadi al amin mbokk yi baaxoo seetaan seen télévision xasaayid tv asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw nuyoo bi mbokk yi comme niñ baaxoo àndee ak yéen ci waxtu wu jot bis bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi dellusiwaat nañ ak yéen ci jataay boobu nga xam ne mooy jataay fàttalante te lañ ci fàttalante itam naafi la yoo xam ne dañ koy jukkee ci xoratul ayn nag mbokk yi buñ ko waxee mooy téere bi nga xam ne moom la Sëriñ Suhaybu Mbàkke def mu di téere bu am am solo làmboo ay njariñ yu baree bari bokk ca njariñ yooyee ay la yuñ jukki ngir mbokk yi di ci jariñu mu mel ne comme niñ ko baaxoo ànd ak yéen ci guddi yi weesu yëpp guddik tey gi dëppoo ak juróomeelu guddi gi juróomeelu guddi gi nag mbokk yi xam naa bala ñuy dugg ci leeral naafila yi ñu profitoo xamle waale ne day daldi dëppoo ak guddi gi nga xam ne mooy guddi gi ñuy dëgmal suba ak jàmm incha allahu taala di bis bi ñu baaxoo fàttaliku Serigne Souhaïbou Mbacké ci gane jamonoom di juróomi fan ci weeru koor li tax ñu koy wax it da lu war ndax sëriñ Soñ bu moom ñuy wax mooy ki def lu lii nga xam ne boobaak leegi ñu ko ànd ak yéen muy liggéey bu amam solo ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa la yokk ay leeram ci barsaq muhammadiya te may ñu fekke ak tal bis boobu lépp luñ ca jaamu bépp liggéey buñ ko liggéeyal moom sëriñ Soñ bu ci ñaan mu jot ca lépp loo xam ne jaamu nañ ci yàlla itam suñu borom nangul ñu ko mu mel ni guddi googu mooy guddi gi dëppoo ak guddi juróomeel gi di guddi tey gii naafila gi di ñeenti rakka rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak alam nasrax ak xul huwallahu ahad ñetti yoon faatiha benn yoon ak alam nasrax ak xul huwallahu ahad ñetti yoon mu ne képp koo xam ne defe ne ko nii mel na ne ko aji junni yoon maanaam ku dem màkk junni yoon umra junni yoon te des na ko musal ci ak ñàkk des na dolli wërsëgam itam te araf wu ci ne des na ci des na ko ci bindal ñaari malaaka yoo xam ne dañuy ànd ak moom di far ay ñaawteefam di bind ay yiwam di ko yëkkati ay daraja ba bis bay dellusiwaat déwén te moom mi def loolu bu faatoo des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaad dee ci jihaad nag leerloon nañ ko ci benn ci naaf yi weesu woon te des na ko jégalit bàkkaaram yëpp te des na ko musal ci ci métitu dee muy mbir mu doy waar di métti tuddee nga xam ne àgg nañ ci wax ne moo gën a metti juróom-ñaar fukki rabu yu sar te naaf gi nga xam ne moom lañuy ñuy tey day musle ci métti tuddee te faw dina am gërëmul yàlla moom mi def loolu te bu faatoo itam des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ci xewu ba keroog bis ba di taxaw kon mbokk yi naafuk tey gi di guddik juróomeel gi ku ci julli ñeenti rakka rakka bu ci ne faatiha ak alam nasra ak xul huwallahu ahad ñetti yoon faatiha benn yoon ak alam nasra ak xul huwallahu ahad ñetti yoon mel ne ko aj màkka junni yoon mel na ne itam ku omra junni yoon des na ko musal itam ci ak ñàkk des na dolli wërsëgam araf bu ci ne itam des na ko ci bind des na ko ci bind ñaari malaaka yuy far ay jëfam yu ñaaw te di ko bindal ay yiwam maanaam araf bu mu bu mu ci jàng ci ci naaf gi rek dañ koy booleeg ñaari malaaka yoo xam ne dañu ànd ak moom bépp jëf bu ñaaw bu mu jëf ñu far ko bépp jëf bu rafet bu mu def ñu bindal ko mu yiw woo xam ne dañ koy dencal ba bisu fay ba ñëw di ko yëkk yëkkati itam ay darajaam ànd ak moom ñaari malaaka yooyu ànd ak moom di ko yëkkati ay darajaam ba bis ba di dellusiwaat déwén moom mi def itam bu faatoo des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaad muy ko xam ne yàlla la doon xeexal maanaam xeex ngir suñu borom am ndam la doon def ba yàlla dogal mu faatu ca tiyaaba ju toll noonu des na ko bindal moom mi nga xam ne moo julli rakkaay yi ñu wax léegi des na ko jéggal bàkkaaram yëpp bàkkaaram yëpp itam bàyyiwuñ benn te donte bàkkaar yëpp nga xam ne bàkkaaru bokkaale sax ci bàkkaar yëpp la bokk kon bàkkaar yëpp rek loo xam ne des na ko jéggal des na ko musal musalit ci mettitu dee wax nañ léegi mettitu dee ni mel xam ne laaj nañ ko waajoo xam ne bi ñu ko laajee muy nitu yàlla ku baax daneka chaatin tusla foofu xayaat waxii xayaat maanaam biñ ko laajee nu deemeel dane comme gàtt bu ñuy fees muy dund maanaam am xar moo xam ne kenn rey ko dañoo dañ ko bàyyi noonu muy dund ñu di ko fees kon noonu la dee métti yonte bi sax sax wax nañ ne bi muy wuy ji borom subhanahu wa taala métti bi àggoon na fu taratar ci moom kon bu ñu ne naaf gii day musle ci méttitu dee mat naa bàyyi xel bu baax a baax ki ko defit fa dana am ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla itam lu mat mat bàyyi xel la Euh, ñi nga xam ne ñoom la yàlla gërëm maanaam yàlla gërëm leen ñu gërëm yàlla wa radiyallahu anhum wa radu anhu la wax mooy ñi nga xam ne yàlla day na gërëm ba noppi ñu gërëm ko ñoo ñooñee ñooy am àjjana joo xam ne ay dexi mooy ay dox dexi xéewal maanaam dexi soow ak sàngara ak yu ni mel ca àjjana day daw ca suufu àjjana jooju ñu am mooy ñu am ngërëmul suñu borom te naaf gi day joxe ngërëmul yàlla subhanahu wa taala waa ji koy defit bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ci xéewu ba keroog bis penc bi ñëw ndax nit ki mën naatee la a génn àdduna lool te bis du taxawagum waaye ki naaf-naaf gi bu faatoo dañ koy ubbil buntu àjjana boo xam ne day jóge ci àjjana fekk ko ci bàmmeelam mu ciy xéewlu ba bis bi di ñëw kon daal guddig juróomeel gaa ngi noonu mbokk yi ñeenti rakkaa la naaf gi rakkaa bu ci nekk faatiha la ak alam nasra ak xul huwallaahu ahad ñetti yoon xéewal yooyu ñu ci diggee ci ginnaaw gi képp ku ko defee nii ñu ko waxee da ci am xéewal yu toll noonu yàlla nañu yàlla may fekke ak tal ci bisub suba bi ak jàmm di màggalu Sëriñ Souhaïbou bu Mbacké gi di joxante ak yéen ba tey dig daje suba ak jàmm ci waxtu wi ci geneen naafila wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.